bienvenue chers téléspectateurs de la 2STV ravi de vous retrouver encore une fois ci seen émission la Ligue chez vous tey boo leen seetloo xam ni ñu ngi fi nga xamante ni moom mooy le Jaraaf de Dakar Jaraaf de Dakar nekk club mythique nekk le prince de la Coupe du Sénégal Jaraaf nag jiitu ci li nga xamante ni moom mooy phase euh, ci 13 journées Jaraaf moo jiitu am 23 points donc loolu moo tax tey ñu dëgtal leen li nga xamante ni moom inside Jaraaf ñëw fi nga xamante ni moom le déjà le terrain de l'équipe xool entraînement yi mais aussi waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoo jiite xamante ni ñoom ñooy entraîneur yeeg joueur yeeg lépp lépp nag dinañ leen ko dégtal ci numéro bi nga xamante ni moom mooy Inside Jaraaf ki nga xamante ni moom mooy euh, Youssou Diall euh, mu nekk coordonnateur euh, directoire bu football bu équipe bu Jaraaf tey Jaraaf moom moo nekk déjà équipe leader ginnaaw treize journées ci Ligue 1 ñu ñëw seet si leen daal di waxtaan ak yéen par rapport ak le club mais aussi par rapport ak li nga xamante ni moom mooy les objectifs ak li ngeen gisee déjà les prestations de votre équipe président maa ngi lay nuyu nga bàyyi la nga nuyu waa 2STV. waa lay maa ngi lay fay. di mhm. nuyu waa waa 2S ñëpp di nuyu donc tous les téléspectateurs de mhm. de 2S di rek di leen fii nga xam ne moom mooy suñu terrain d'entraînement donc euh, Jaraaf. Jaraaf 23 euh, points en 13 journées euh, le bilan est-ce que lu ni mel moom ngeen doon xaar. waaw bon li ñu mel moom bon ñun ñu ngi doon yaakaar am plus de points que ça. Mhm. mais euh, c'est vrai que nag bon championnat bi euh, ni ñu ko terminé nii phase ale bi nekk euh, champion phase aller mën nañu wax ni que on a un sentiment de satisfaction. Mhm. mais ñëpp xam nañ ni la première place donc phase aller c'est anecdotique. Mhm. ça ne veut rien dire boo ko seetloo ñun sax ku xool ci palmarès jaraaf xool année yi ñu jël championnat yëpp. rare na néew na ci année yoo xam ne donc nekk nañu champion donc phase phase aller. que ça ça ne veut rien dire c'est anecdotique mais euh, xanaa gën a góorgóorlu rek xam ne aussi donc championnat bu bu métti la ñuy joué parce que championnat Sénégal bu métti la ñuy joué. Mhm. tey mën nga citer euh, presque cinq équipes wala six yoo xam ne mën nañ nekk champion à la fin. Euh, du championnat, mhm. de, rien n'est encore donc joué xanaa donc gën a góorgóorlu rek gën a liggéey. Mhm. pour euh, incha allah donc euh, nekk champion mooy objectif bi moom. Mhm. jaraaf ñëpp xam nañ ko moom la ñuy wax de saison c' est d' être champion à la fin de l' année. Mhm. xam nañ nag du yomb mais euh, c' est l' objectif donc du club et on fera tout pour être champion à la fin de l' Jaraaf n'a pas encore enregistré de défaite mu daal am li nga xamante ni moom mooy cinq victoires huit matchs nuls bilan bi. euh, est-ce que c'est satisfaisant déjà bu ñu xoolee le nombre de de matchs nuls mais aussi le nombre de victoires à l'extérieur waaw boo ko seetloo euh, fi ñu gën a amee satisfaction mooy peut-être donc les victoires à l'extérieur ça veut dire que quatre victoires à l'extérieur quatre veut dire que mm-hmm. l'équipe voyage bien mm-hmm. et ça c'est depuis l'année dernière boo ko seetee même en mm-hmm. Coupe du Sénégal en championnat on a gagné beaucoup de matchs difficiles à l'extérieur ça veut dire que aussi que ñun on voyage on bien donc li nga xam ne nag peut-être mooy li nga xam ne mooy ñuul ñuul mooy fi nga xam ne mooy suñu entre muy Iba Mar Diop on a foofu ay match nul rek lañ fa lañ fa lañ fay lañ fay am. Mhm. donc du loo xam ne aussi donc lu ñu gënal la. Mhm. mais euh, lépp dafay bokk si li nga xam ne mooy analyse bi nga xam ne moom la staff bi ak euh, direction sportive bi nga xam ne ñu ngi koy def. Mhm. parce que tam tey boo terminé donc sa phase aller foog nga def benn évaluation. foog ñu xam lu tax ñun à domicile mënuñu fexe donc ba ba euh, am njort nañ ñi am nañ ñi. est du ñaari fa ñaari facteurs yi mooy la qualité de la pelouse mais aussi la pression ci parce que souvent tam aussi dañuy waxtaan ak suñu supporters yi ça sert à rien de mettre la pression sur sur sur les joueurs d'autant plus que équipe bi mi ngi si dans une bonne position mm-hmm. souvent loolu laay ñaax suñu supporters yi donc mm-hmm. euh, ñuy gën a jàppale équipe bi mm-hmm. joueurs yi li ñuy soxla moom une pression positive mais pas une pression négative donc euh, di leen mettre la pression ça ne sert rien il faut que ñu leen di encourager nekk euh, jusqu'à la dernière à l'extérieur, c'est important parce que donc, ici, il y a une statique. Quand tu vas à Pékin, tu vois qu'il y a un public qui est, qui est derrière. Effectivement, donc, au niveau du stade Alassane Il y a une pression donc, positive donc, sur, sur l'équipe. Donc, mm -hmm. ils supportent donc, leur équipe jusqu'à la dernière minute. Mm -hmm. Nous aussi, donc, sur l'OL, nous avons aussi nos supporters. Il faut que nous nous gën di jàpp donc ci équipe bi gën di ko di ko di ko soutenir. Mhm. donc ba nga ba nga xam ne donc euh, dinañ mën di gagner donc ay points. Mhm. Euh, grâce au au au public beneen bi nga wax tamit aussi mooy la qualité donc du terrain même s'il y a eu des améliorations. par mhm. rapport à la dernière ñëpp gis nañu. Ibamar. Vraiment, il y a eu un travail qui a été fait par les directions de, de et du Jaraf mhm. pour que le terrain donc, soit praticable. Il est praticable, mais on doit pouvoir améliorer en fait, donc, la qualité de, la, de la pelouse. Mmh. Mais il y a aussi donc, mhm. Bon, c'est vrai que l'équipe aussi est invaincue comme Ninka, Ninka, Ninka C'est une, satisfaction parce que c'est toujours bon pour le, pour mhm. Mais on aurait, aussi donc, voulu, loolu moo ñu doon gënal. Euh, le Jaraaf euh, a recruté déjà un entraîneur qui était là champion du Sénégal en 2018 Malick Daf. Mm. Malick euh, dafa mel ni objectif am mooy ñëwaat dàbbaliwaat daal di jël li nga xamante ni moom mooy championnat bi parce que aussi on a vu vraiment mm. beaucoup de mm. recrutements et des recrutements qui ay joueurs yoo xamante ni on va parler de Aimé Tendeng Ababacar Sarr Diédhiou il vraiment beaucoup de joueurs yoo xamante tey gis nañ leen avec aussi mm-hmm. de que Malik Daf déjà avant qu'il quitte ici il avait déjà fait cinq ans ici et c'est rare qu'un entraîneur au niveau du Jaraaf def fi cinq ans mhm. donc ça veut dire que aussi am na liggéey boo xam ne defoon na ko fi mhm. ba pare aussi moom xam na kër gi ah, mhm. donc c'est important aussi booy recruter entraîneur moo xam ne xam na kër gi il maîtrise l'environnement donc de l'équipe ah, il connaît aussi donc très bien donc les dirigeants donc am na benn ah, am boo xam ne donc ça a de ce club et les ñuy jëlaat entraîneur na ñu jël koo xam ne xam na kër gi aussi bi mu fiy ñëw aussi gagné woon na mhm. donc euh, Malick Daf ñëpp xam nañ ni c'est un gagneur mhm. euh, moo tax son recrutement n'était pas anodin c'était par rapport à l'objectif du club mhm. dañu xool xool ba xam ne xam ne ku mel ni Malick Daf mën nañu dimbali ba ñu atteindre aussi donc suñu objectif la direction sportive on va parler un peu des objectifs au niveau des euh, coupes prince de la coupe du Sénégal daaw ngeen jël waaw mais xam nga rek donc euh, coupe moom euh, ñëpp gis nañu ce qui s'est passé lors de la finale coupe dafa neex. Mhm. je su finale donc euh, dafa dafa dafa neex. on parle un peu du championnat le championnat sénégalais aujourd'hui ñu bëri dañ daan wax ni championnat yi les stades sont vides mais là. le Jaraaf joue à guichet fermé pratiquement. Mhm. Est-ce que après la fermeture prochaine du stade Iba le Jaraaf ne va pas aussi euh, vraiment am ay jafe-jafe tuuti pour euh, ses supporters parce que. Mhm. ñu bëri dinañu bëgg seetaanu match Jaraaf mais est-ce que dina mën a nekk avec les stades municipaux yi ñu am. non pour man donc loolu ça ne pose pas problème. yaa mhm. wax ni Jaraaf peut-être day jouer matcham yu bëri à guichet fermé. mais c'est le cas aussi donc d'autres donc dafay loo xam ne lu ñu rafetlu la mhm. lu ñu rafetlu la parce que tam tey jii boo ko seetloo match yëpp peut-être stade yëpp tey jii day day day fees mhm. donc ça veut dire que aussi yaa am na benn regain de popularité au niveau donc des stades au niveau donc de ce championnat mhm. et loolu aussi ñun dañ koy dañ koy rafetlu c'est vrai que nag à un moment donné peut-être que donc ñun on sera amené à aller euh, dans un autre stade tudd nga léegi stade de Ngor mais il y a aussi donc d'autres possibilités. stade des Parcelles Assainies mais dans tous les cas. Mmh. ñun suñu supporters mmh. ñoom euh, ñoom ñoo ñoo xam ne euh, équipe bi fu mu dem dañ koy topp donc ñun amuñu si sikki sàkk xam nañu tey jii. Mmh. suñu supporters yi am na lu mu leen donc jaral jaraaf am na lu mu leen jaral supporter daanaka tey jii moo yore équipe. bu ñu nekkee bu ñu amee de supporters. topp ci ginnaaw équipe bi ñuy mobiliser wu xam ni. Euh, dinañu mën a dimbali ñu atteindre suñu objectif. Euh, maanaam l' objectif euh, c' est déjà des titres mais aujourd'hui mënuñu wax ci Jaraaf sans pour autant parler un peu de de de, de la direction à mm. savoir Cheikh Ahmed Tidiane Seck. Mm. un ancien du club et aujourd'hui qui abat un travail considérable parce que mm. yombul équipe am un terrain d' parce que daaw accroché naa ko après la finale de la coupe du Sénégal mu ne ma l' objectif premier c' était un mm-hmm. que moom bi muy bi muy bi li mu njëkk a wax bu nit ñi fàttalikoo discours am c'était de dire que man euh, ñëwuma rek pour gagner ay titres parce que gagner ay titres ñi fi jàlloon ñëpp gagner nañ titre mhm. man peut war a ñëw pour mën a exploiter patrimoine bi nga xam ne moom la fi suñu anciens yi donc bàyyi woon mhm. donc patrimoine bi nga xam ne moom la fi suñu anciens bàyyi woon commencé na ko def tey boo gisee tey am nañ suñu terrain mhm. euh, d'entraînement avant jaraaf dafa doon loué ay terrain dem mhm. Dakar Sacré Cœur wala dem yeneen terrain mhm. tey jii boo gisee tey ji am nañ suñu terrain mën nañu jouer ba heure bu ñu neexee après bu ñu paree petite catégorie donc euh, enchaîné mhm. donc loolu aussi ça joue sur les performances de l' euh, boo ko seetloo bi ñu amee ba léegi aussi donc les performances ñi ngi ñëw donc ça c' hyper important au delà de ce terrain d' espace bu vide bii ngeen gis nii fii moom la war construire l'ancien donc Kër Jaraaf il y aussi un projet immobilier boo xam ne tey jii moom mooy permettre après que le Jaraaf retrouve mmh. l'autonomie financière mmh. donc tout ça yooyu moom mooy objectif c'est important de gagner mmh. parce que le fait de gagner loolu moom mooy tax que le club continue à exister parce que euh, le sportif tey jii une équipe de football un club de foot, c'est le sportif qui lui permet de continuer à exister. Mhm. Mais au-delà donc des résultats sportifs, il faut aussi qu'on puisse développer donc le, le, le patrimoine que mm -hmm. nous avons ancien donc légué. Mhm. Et Chersec et l'équipe autour euh, de sa personne donc c'est l'ol le Euh, la 2STV avec euh, ce championnat toujours euh, dans le cadre de la visibilité. Mhm. bi nga xamante ne am na ay temps daan ka daan jooy les matchs sont retransmis mhm. mën nañu toog mag yi jaraaf yi mën nañu toog biir Medina. Mhm. teg seen ataaya seetaan li nga xamante ni mooy match jaraaf yi. waaw dëgg la loolu moom dañ koy dañ koy rafetlu parce que liggéey bi nga xam ne moom moo visé à aider le football local dañ koy rafetlu suñ suñ si 2S. aujourd'hui ñun dañ ay sponsors yu intéressé wu tey jii ci Ligue 1 bi. Mm. ak même si yenn équipe yi c' parce que aussi donc dañ koy diffuser yenn match yi en mm. direct. Mm. par la par la mm-hmm. te loolu dañ leen ci encouragé donc dinañ ci félicité. Mm-hmm. xanaa di ñaan rek aussi donc 2S mën a dem ba nga xam ne dina def en direct plus de match par par par par semaine il demander ça à la direction surtout madame Ndiaye ak monsieur Ndiaye daal dañ di ñaan daal. Mm-hmm. vraiment ngeen

Inside Jaraaf Jaraaf yaru yeewu yeete et merci aussi à Seynabou pour le maillot vous avez vu la qualité de ce maillot le Jaraaf aussi a des maillots vraiment qui sont vendus comme des petits pains. c'est vrai que fait donc loolu aussi donc c'était un objectif donc le merchandising c'est important. Mhm. parce que day indi aussi ay rentrées d'argent donc euh, pour le club. Mm-hmm. ça nous permet de financer aussi certaines activités donc du club mm-hmm. et euh, gis nañu aussi donc supporters yi tey jii euh, euh, ils sont très très attachés au club mm-hmm. d'ailleurs ça j'en profite pour leur annoncer que bientôt les nouveaux les les nouveaux maillots ils vont les dans quelques jours yegg si na dans quelques jours on commencera peut-être à les commercialiser donc le Jaraaf fait partie aussi des rares clubs qui ont des antennes dans les régions parce a loolu c'est une particularité euh, de cette équipe. waaw xam nga moom dañuy wax donc le jaraaf peut-être de Dakar mais le jaraaf donc c'est. jaraaf du Sénégal parce que hmm. am nañu ay supporters fépp boo xam ne am nañu ay section ba Richard Toll am nañu ay section de Thiès. et cetera hmm. moo tax souvent. quand le Jaraaf se déplace déplacement de l'équipe mhm. donc c'est important parce que d'un côté Jaraaf man on en a un peu partout à travers le Sénégal di nga mhm. ñoo xam ne dañuy dem si région pour liggéey toog fa ñooy mhm. du Jaraaf après ñoom ñooy créer foofu ay de supporters moo tax saa ñuy jeu final donc gis donc euh, section dañuy jóge un peu partout à travers le Sénégal pour ñëw participer à la à phase retour ça sera un peu compliqué pour l'équipe vraiment c'est une équipe euh, très dure à jouer et très difficile à jouer du côté du stade Amadou Barry. waaw loolu moom lu leer nga wax donc euh, ce sera un match très très difficile parce que Guédiawaye aussi c'est une c'est bonne équipe et euh, c'est une équipe aussi qui a été mise dans de très bonnes conditions par son président. Mm. ils ont de bons joueurs. comme ni may wax rek ñoom aussi c'est des prétendants donc au, au titre à l'image donc de Pikine de Teungueth FC de Gorée de l'US Gorée de l'US Gorée donc de, de Dakar Sacré-Cœur donc ñooñu ñëpp aussi nag équipe yoo xam ne tey jii booy booy booy daje ak ñoom mm. rien ne jouer il faudra donc le jour J prêt pour essayer d'avoir un résultat positif là-bas merci merci beaucoup président on passe euh, vraiment à euh, aux autres acteurs dans ce Inside Jaraaf toujours euh, pour vous dans émission La Ligue chez Ahmed Niang nga bokk ci jour yi nga xamante ne dañoo ñëw jaraaf ci mercato bi déjà bi nga ñëwee naka la la équipe bi accueillir. bon tout d'abord maa ngi maa ngi leen remercier bu baax et tout bon bi mu ñëwee jaraaf moom comprendre nga jaraaf nekk na équipe ba nga xamante ni fa am organisation équipe bu mag la daral nañ ma si jàmm comme fii laa dëkk comme si que def na fi at. comprendre nga dañ ma dañ ma jàppale bu baax fekk naa fi sama yenn grand yi comme ay Rémi Ousseynou Assane. aidé nañ ma bu baax a baax quoi tout le temps dañ ñëw di wax man tout le temps dañ may conseiller comprendre man te aussi dama leen di déglu tout le temps donc loolu tamit gën a facilité ak sama ak si sama intégration coach yi aussi gis naa ni que dañ may jàppale dañ may rectifier tout le temps dañu wax ak man comprendre loolu moo gën a facilité sama intégration fii nii si fii nii si Jaraaf nga nekk le meilleur buteur du club ci phase aller yi avec cinq buts euh, déjà contre cinq équipes différentes euh, lan moo lan moo gën a facilité vraiment prestation yi nga def euh, durant ces phases aller ah comme ni ñu koy waxee rek jour moom pour man lépp lu muy progresser si ay jour jouram la pour man collectif bi moom ma dooleel collectif bi moom a dimbali comprendre ko ah, peut-être que ma am naa si peut-être ay individualité tuuti mais collectif bi moom ma gën a jàppale. coach bi aussi daf may daf may ratifier lu bari surtout devant les buts coach Daf ma ko siy sant bu bëri bëri daf ma siy ratifier da siy waxtaan a man lu bëri quoi comprendre nga donc ak ak aussi suñu collectif bi ñu am donc loolu moom loolu moom gën a sama coéquipier ñoom si gën a gën a gën a dimbali quoi. par rapport ak tey bi est-ce que gisaat nga wala seetaanaat nga sa but contre Stade Mbour. waaw bon. bii kese bii kon stade Mbour waaw des fois comme des fois maa ngi ko yor maa maa yor ay yenn vidéo sama téléphone des fois su ma toogee def ma dara nii rek wala avant match may seenaat vidéo yi vite fait noonu rek voilà. Son pour cette saison est-ce que mooy doon meilleur buteur actuellement avec cinq buts te dese nañu vraiment treize matchs. waaw bien sûr bien sûr comme toujours man moom peut-être noonu noonu laay demee sama mantal mooy sans limite donc pourquoi pas ma nekk meilleur buteur. donc man moom noonu laa nekk di demee quoi ku nekk nag am na ay objectif am na ay ambition mais man sans limite laa demee lu lu lu lu possible rek le plus haut possible le plus loin possible. maintenant en dehors du Jaraaf déjà sa carrière fan nga séntu sa bopp parce que xam nañu que jour yu bëri vraiment seen rêve mooy ñu monter en puissance euh, yegg ay euh, championnat yu ci mel ni Europe déjà sa club de cœur ak fan ngay séntu sa bopp pour les années à venir. bon comme ñëpp ñun ñëpp dañoo bëgg dem jouer gaaw génn Sénégal jouer Europe kon moom loolu foofu laa visé sama bopp bëgg naa jouer Europe jouer si compétition yu gën a mag jouer club yu gën a mag comme Real Madrid donc bëgg naa jouer am naa bëgg naa jouer bu baax jouer Real Madrid comprendre nga loolu laay ñaanal tamit sama bopp di ko ñaanal joueur yëpp incha allah rabbi. lan la la def euh, nga jóge académie delluwaat ci club bu xamante ne club traditionnel la euh, déjà loolu lan la la def choix boobu yomboon na. bon. pour moi, ça n'a pas été un choix difficile. ma joué ma joué ak jaraaf am na lu bëri lu bëri lu mu yokk si man am na parce que jaraaf club traditionnel en plus dafa dafa bëri pression côté côté si sama mentalité am na lu bëri lu bëri lu ma découvrir loo am na lu bëri lu ma lu mu yokk sama mentalité tamit comprendre nga pour man bénéfice si man pour man benn benn benn benn benn benn opportunité la bu bu baax a baax si man. ci sama ci sama carrière football quoi ma joué ma joué Jaraaf. par rapport ak pression dañoo gis ne à domicile benn match kese ngeen gagné avec euh, quatre victoires à dafa mel ni stade Iba dafa métti ci yéen devant xam na que ñun moom Jaraaf ñëpp xam nañu que public am bi dafa dafa dafa am doole trop dafa exigeant comprendre nga mais ça reste le football football football mooy demee noonu lépp lu ñuy xeex lépp lu ñuy def à l'extérieur ñu koy def bu chance bi moo ñëwagul mais à force ñuy continuer di continuer dinañ dinañ si am ay résultats incha allah. Mohamed Niang eh, c'est l'égalisation c'est l'égalisation du Jaraaf c'est l'égalisation du Jaraaf bi marqué par Mohamed Jaraaf qui égalise. on est avec euh, Aliou Souane Aliou euh, nga jógee Dakar Sacré-Cœur ñëw Jaraaf en prêt. Euh, sa intégration biir euh, club bu jaraaf naka la demee. waaw sama intégration fii moom macha allah quoi gars yi dalal nañ ma comme nañ mën a dalee te en plus tamit fekk naa fi ay samay copains fekk naa samay gars ñoo xam ne dama nekkoon ñoom ay sélection ñëw fii xam nga mu gën a yomb quoi ñu dalal ma en plus tamit fekk fi ay grand yoo xam ne yàgg nañ championnat bu ñu dalal ma comme genre mi Bokande waaw ay Assane Mbodj ousin maa ngi kontaan si ñoom bu baax. ngeen jël euh, premier euh, avec euh, vingt trois points ci phase aller yi déjà avec six buts encaissés nga nekk défenseur am sa place titulaire au niveau du Jaraaf ce n'est pas aussi une lourde responsabilité nekk défenseur central équipe bu Jaraaf. oui dëgg la dëgg comme ni ñu ko doon gérer rek gérer bëgg la ñu ne ancien comme lu ñu wax rek ñu ne lii musul am Jaraaf kon loolu kontaan la si défense bi défense bi et nañ solide des fois am na match yoo xam ne. waaw mënul ñaax dañuy encaissé mais dañuy être solide ba ñu jël défaite daal en tout cas buñ buñ jël defet ñu jël suñu un point comme comme allez ma si retour yi maanaam retour yi ñu gën a concentré si retour yi xam suñu mas bu ñu recevoir ñu jël si ndam incha allah. amagoo leen euh, défaite ci treize matchs dafa mel ni nag euh, jaraaf si solide derrière. waaw très solide même waaw. très solide même comme coach l'a dit rek coach bi loolu la ñuy wax chaque jour être solide surtout si ginnaaw solide derrière ndax si ginnaaw mooy lépp buñ solide wul buñ concentré wul rek xam nga on prend comme ñu ngi être solide jëluñu défaite on reste là plus solide encore Souane euh, sa carrière déjà fan ngay séntu sa bopp après parce que on sait que da nga ñëw fii nii en amour de près jógee euh, beneen académie bu dul fii déjà Dakar Sacré-Cœur moomu la woon fooy séntu sa bopp euh, pour le prochaines années. waaw maa ngi séntu sama bopp comme mooy séntu sama morom pourquoi pas mun na nekk te gëm naa ko saison bi moo tax ma ñëw jaraaf pour def lu mu fi war a def de sama dernière saison mooy sama ambition moom laa moom laa gëm quoi ren sama dernière saison fii pour football extérieur incha allah. daaw dañu la annoncé woon Maroc lan moo capté woon transfert boobu. waaw demoon naa Maroc su benn équipe Soudan Al Hilal dama daje ñoom Maroc mais am fur et ba ma demee fekk visite médicale moo yéex quoi te mercato yi fekk mu tëj moo tax ma retourné encore fii incha pour liggéeyaat. est que mën yaakaar ne di nga delluwaat Al Hilal Omdurman. waaw peut-être incha allah mais ñu ngi ñu ngi siy waxtaan quoi ñu si waxtaan ba pare ñu ngi siy waxtaan ak sëñ bi waaw lépp ñu bàyyi ko si loxo yàlla rek incha Cheikh félicitations Jaraaf euh, nekk première ci treize journées bu ñu xoolee nombre de buts ngeen encaissé six buts encaissé ci treize matchs pour yow est-ce que lu mel euh, déjà dal na xel avec la défense toujours Aliou Souane Ablaye Diédhiou ay défenseurs yu bees yu leen fekk si. Ah, dama naan c'est loolu loolu extraordinaire la parce que défense bu bees en général pour mu gaaw a soudé wu c'est tout un problème waaw ah, mën nga ñëw défense bees bi jël ay buts ba saison bi saison bu métti nga joué ko waaw ah, mu buts di bëri mais comme on a Ablaye Diédhiou international la Sadio international la Rémi la même chose aussi man tamit Fallou Fall parce que mën naa ne ñun ñi nekk ci ginnaaw yëpp nous a les matchs à domicile dañ ciy ñëwaat la pression du public public bu jaraaf dafa mel ni public bu exigeant la bëgguñu nul victoire rek lañ bëgg. public ah, bu la ñuy war. waaw mhm. ah, mais nag loolu wan ni que ni gars yi xam nga am na seen club bi am na fu mu leen toll. parce que loolu mën naa ni dafa raar waaye mu ngi commencé ñëw et loolu day may football bi doole quoi. Mhm. bi public bu Jaraaf moom non c'est autre chose. waaye duñ la may jàmm dañ lay sam quoi paa yeeg xale yeeg ñëpp euh, ngeen di waaj li nga xamante ne moom mooy phase retour yi euh, déjà on a vu vraiment équipe yi nekk ci ay entraînement yu méttee méttee méttee ngeen war a commencer déjà avec euh, Guédiawaye seen premier mais laataa loolu Dakar Sacré-Cœur la dernière fois dañoo gis ni que da ngeen mën a 2-0 mais moo indi woon résultat boobu. parfois day am ci football parfois day di nga mën a équipe sonal ko après moom mu am temps fort am ñëw. mu mënul amul lucidité rek mën nga jël plus wala ngeen tolloo yéen ñaar. ci comprend mooy ci match contre bi laay wax xoolee beneen match ci beneen euh, contexte bi nga ma wax mooy maanaam Stade de Mbour la même chose Sonacos la même chose waaye dafa day am ci football nit ki day am temps fort da koy exploité yow nga am si temps fort nga exploité. góol euh, Jaraaf sa président nekk ancien gardien est-ce que aussi il n'arrive pas parfois Cheikh Seck daal xëcc seen nopp yi. <laughs> <laughs> kooku sama papa de ah il fait tout pour moi nag lu leer laa la lépp lay def ci ban ah duñ réeroo maag moom quoi parce que des fois day ñëw sax du mu sànni ma xeer waaw du ma def dara day ñëw ne Cheikh Ndoye la ana Cheikh la moo tax ngeen di jël bii heure bii la ngeen <laughs> des fois sax du ma góol mais man lay ñëw wax ak projet ma la bu ñëwee ci des fois mun na du sax des fois du sax wax ci match yu passé yi day ñëw wax ci match bu xew wi après dem na mm-hmm. on va parler un peu d'un joueur euh, Ahmed noo gisee déjà le joueur euh, bi mu ñëwee fekk si leen nekk le meilleur buteur vraiment muy def ay prestations yu am solo loo ñu mën a defal euh, comme témoignage ci ce ce jour là. mën naa ne Ahmed Niang ku ko am da ngay da ngay da ngay sant yàlla en fait parce que nee naa lu mu am ci football dafa raar explosivité maanaam di vite jaww di taw taw taw taw léegi football bi léegi loolu la laaj. en plus dama koy nekk dafa nekk gos boo xam ne dafa yaru day déglu ba mu ñëwee ñu fekk ñu anciens yi xam nga. premier jour bi xëy na xamuñu ak génération fu mu nekkoon on s'est parlé avec xam nga après il a un peu dévoré ma ne ko booy <laughs> ñu ñoo fi ne après mu commencé xam ne que ni fii club bi du club bu du bu ndaw ma expliqué ko wax ko réalité yi ab nag ñu gis que ni muy avancé et tout te ça fait plaisir que mu nekk ci mu nekk meilleur buteur actuellement nii franchement. Cheikh euh, Sénégal bu ñu joué championnat léegi dañuy gis ni que vraiment la 2S day def en direct match yi déjà noo gisee le fait que ñuy retransmettre en direct le championnat surtout certains matchs du Jaraaf. oui ça me plaisir parce que tey mën naa ni loolu moo ñu manqué en fait moo ñu manqué woon parce que tey da ngay fubal maanaam sa yaay day bëgg seetaan ah say papa day bëgg seetaan mais duñ ñëw stade parce que des fois nga ñëw coo am lakk ma jëlaat xam nga ma am léegi il suffit que ngeen ñuy tegal match yi parents yi di seetaan sama suñu rakk yi di seetaan ci famille ñëpp di seetaan mhm. loolu maanaam fierté la ci nit ki fierté la ci mhm. aussi tamit ci euh, ñuy seetaan ak public bi yëpp yaa ngi comprendre mhm. c'est juste ça wax que ni maanaam ñu leen di remercier bu bu baax a baax baax ci liggéey bi ngeen am na solo trop waaw parce que ya ngeen tax ngeen nit ñi duñu gis waa ak feneen ak feneen ak feneen bilan satisfaisant. Je pense que euh, notre objectif, c'était euh, d'être premier à la, à la fin de, de, la phase aller. Et là, euh, on est premier. Je pense que c'est un bilan satisfaisant que nous tirons de, la, de cette première partie de saison. Bien qu'il y a des choses à améliorer, je pense qu'il y, y, a du bon, il y a du moins bon, il y a du mauvais. Et maintenant, on va essayer de profiter de cette mini-trêve pour essayer de corriger, de, de rectifier nos, nos, nos, nos, erreurs, de corriger les lacunes que, que, que nous avons euh, vues au sein, au sein de, de l'équipe durant, durant la première partie de saison. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, faire une phase aller sans, s'en défaire. Je pense que c'est réconfortant, ça nous donne encore plus de force et ça nous donne encore plus d'envie pour essayer de se préparer pour la deuxième partie qui sera encore plus difficile parce que là, nous serons l'équipe à, à, à, à battre Et on, on, on, est, on, est, conscient de cela et c'est pour cela qu'on est plein dans, on est en, on est plein dans, le, dans, le, dans, dans le travail. On, sait, on va essayer d'améliorer euh, les bonnes choses qu'on a vues lors de cette première partie et essayer de corriger les, les lacunes qu'on a vues, les erreurs qu'on a vues dans, dans l'équipe et surtout essayer de faire euh, le, du mieux euh, pour, par rapport à nos, au match à, à domicile. domicile. Euh, sur cette journée, vous avez engrangé 9 points sur 21. Qu'est-ce qui est à l'origine Une seule victoire contre GF à domicile et 4 victoires à l'extérieur. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces résultats, de ces performances au niveau du stade Iba Marjo oui, il y a déjà l'état de la pelouse. Je pense que c'est une pelouse qui ne nous permet pas de, de, développer le football que nous voulons, euh, que nous arrivons à faire lors, quand, quand, lors de nos matchs à l'extérieur. Et je pense qu'à domicile, il y a euh, la pelouse d'abord, il y a aussi euh, la peur de perdre ici à domicile et aussi la pression des, des, des, des supporters. Je pense qu'on a vu lors de nos matchs ici la réaction des supporters à la fin des matchs et je pense que c'est quelque chose que nous essayons de corriger, essayons de, de, essayons de corriger, essayons d'expliquer aux supporters que l'équipe a besoin de vous, l'équipe a besoin de votre, de votre, support. Vous devez être un, élément en plus et non un élément non, et non, et non un, un, frein pour, euh, pour, pour l'équipe. Et je pense que aussi euh, il y a la peur de, de jeu à domicile, il y a, y, a, cette peur qui, habite les, les, Et je pense qu'on va essayer sur le plan psychologique de travailler cela d'essayer d'enlever ça. Maintenant, avec la fermeture prochaine du stade Ibamar, le Jaraaf va jouer à l'extérieur. Est-ce que ça ne sera pas un avantage pour vous Et du côté des supporters, ça sera aussi un frein pour euh, euh les séparer un peu de leur, de, leurs équipes, de leur équipe Oui, si après la fermeture de, de, du stade Ibomar est effective, nous allons, essayer, nous allons déménager, nous allons chercher un autre site pour aller jouer nos matchs à, à domicile. Bien, comme, bien comme tu l'as si bien dit, on va jouer à l'extérieur. Et je pense que quand on voit nos résultats à l'extérieur, je pense que ce, serait, ce, serait, ce sera une bonne, une bonne chose pour, pour, pour le dire. Non seulement je pense que nous aurons une meilleure qualité de pelouse et aussi les joueurs joueront plus, plus, plus libérés. Et je pense qu'on a fait euh, une première partie une très bonne première partie concernant les matchs à, à l'extérieur. Et maintenant, il faudra continuer sur cette lancée, sur, euh, essayer d'abord de s'adapter au nouveau terrain où nous allons, où nous irons jouer, essayer de s'adapter à, à, à ce, terrain et essayer d'engranger le maximum de points, essayer de faire mieux qu'en première partie de saison, parce qu'en première partie de saison, le bilan à domicile est, est, est, est moyen. Et on va essayer de corriger, corriger cela en deuxième partie de saison pour essayer d'arracher le maximum de victoires euh, pour nos matchs à, à, à, à, domicile. Je pense que nous sommes sur la bonne voie quand on voit, quand on voit l'équipe jouer à l'extérieur et c'est la même équipe Je pense qu'il n'y a pas de gros changements. Je que on, ça montre la qualité de ce, de de, ce, de ce, groupe. Maintenant, il faudra juste corriger euh, nos matchs à domicile pour essayer de, faire un pas en avant et essayer d'engranger le maximum de points. Ablaye Diédhiou euh, nga nekk euh, l'un des joueurs yi nga xamante ne dañoo rejoindre le Jaraaf de Dakar nga jóge Casa yan objectif ngeen am parce que dañoo gis ni que da ngeen am 14 points à l'extérieur ngeen nekk la meilleure équipe à l'extérieur mais sixième équipe à domicile est-ce que euh, boo leen génnee stade Iba Mar di jouer par exemple stade municipal bu Ngor wala bu Parcelles parce que bu ñuy tëj Iba Mar di ngeen génn est-ce que mën nañu xaar vraiment euh, la Jaraaf am ay point yu am solo pour les matchs à domicile. waaw pour les matchs à domicile moom lu leer laa la wax ñun bu ñu jouer fii rek am problème mais bu ñu génnee lañ gën a aay te yaakaar naa championnat bu ñu koy jël moom à l'extérieur lañ koy jël. waaw parce que foofu mooy seen adhérent foofu lañ gën a aay sax waaw parce que bu ñu fa génnee ñuy jouer en l'aise quoi fii parce que terrain bi état supporters yi xam nga loo ci mun a joxe à cent pour cent mais bu soobee yàlla moom ren moom suñ championnat la waaw. Euh, ñu wax ci Ameth Niang moom itam recrue la jógee génération foot noo gisee déjà le joueur en dehors terrain après ñu ñëw sur ses qualités sur la pelouse. waaw Ameth euh, instant bi dinaa la ne moom moom boot équipe bi ci kaw parce que bu joué ñun sax ci défense dañuy kontaan parce que am joueur bu mel ni Ameth ci championnat bi nii léegi dafa raar dafa doon booy boo xam ne dafa xam lu muy def mun lu muy def tamit waaw moom moom sur le compte beaucoup quoi waaw ndaanal la moom te xale bu ndaw la ci cinq buts yu mu dugal ban moo la ci gën a neex est-ce que bu bu mu dugal contre Stade de Mbour wala yi muy dugal yi contre yeneen équipe yi ban euh, but boo xamante ne dugal na ko vraiment mu neex la yow en tant que défenseur ci ginnaaw. ba muy dugal contre Casa Sport. waaye tam bii bii takkaan la dugal. parce que ñun yaakaar ñoon sa amee dina dóor. mais fu mu fekk bal bi nu mu ko dóoree piego gauche sax man dama jommi bal bi nu mu duggee. waaw bii boobu moom. bii attaquant dëgg la dugal. te xale la bu màggee moom xam ne nag. dina rey championnat bi. Ablaye euh, jouer jaraaf avec les supporters déjà miin nga ay supporters yu bari mais qualité wu supporter yu jaraaf est-ce que c'est différent de euh, de ceux euh, du Casa. waaye am na qualité am na différence bu bokk kay am na différence bu bokk Casa moom c'est de l'or Casa <laughs> yàlla dafa leen béni rek parce que mun nañ lu ñuy def waaw moo tax ñun bu ñu fa nekkoon nañuy reyante rek parce que ñoom dañuy jouer ci kaw ñu ñuy jouer si suuf. waaw parce que dem naa ba bañ may bañ may wéyal foofu xam ne nag loolu nag yombul waaw ñoom nag ay ndaanaan lañu moom. mais dafa mel ni wéy woowu amoo ko du côté de Jaraaf. non parce que fii ñoom asiko lañu xam ñun fële suñu yëfu joolaay lañu xam mm-hmm. waaw. Ablaye à la fin de la saison fan ngay séntu sa bopp déjà est-ce que continuer au niveau du championnat Sénégal ou bien vraiment s'expatrier. fu ma séntu sama bopp pour maanaam bu ma fi naree jóge quoi. ay joué ay Barcelone rek parce que <laughs> sambi ñu bëri loolu la ñuy ñaan yàgg nañ ci championnat bi moom. waaw demi lekk e feneen xaalis moo gën quoi. Uh, pour ñu jeexal 2STV uh, yi championnat les matchs en direct noo gisee déjà la diffusion des matchs bu 2STV yi di def. non 2STV moom moom moom dama kontaan ci seen liggéey bi quoi parce que may rappelé wu année bu ñuy joué coupe du Sénégal Casa jàmbar parce que ñoo nañ bañ ma fekk euh, suñu siège bi fële. interrogé wu foofu fekk ñu di yóbbu ñu ba stade parce que. xamante ni moom mooy LCV merci de l'avoir suivi et bonne des programmes sur la 2STV. waaw ma am tamit foofu benn jabar bu ma bëgg foofu moom nag. <laughs> Oh suñu jigéen oh boobu rafet boobu. Fatima waaw nag dama kaa bëgg nag waaw kaa bëgg hélas <laughs> <laughs> jox ma Fatima waaye.